Merci. jërëjëf jërëjëf. ma ne bu ngeen seetloo. bu ngeen seetloo bu baax ñiy wax yëpp nag ñaar ba ñetti catégorie la xam ngeen peut-être catégorie bi mooy ñan mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ni war nañoo mën a dellu si si nguur gi ni mu gën a gaawee te pour ñoom pour ñu mën a dellu si si nguur gi nu mu gën a gaawee fokk rek ñu fexe ba Sonko jóge fi comme ça ñu jàkkaarloog Basirou Diomaye ñoom daal jàpp nañ tànk Sonko ngi frenkulaay fi mu frenkulaay rek mbir mi du du demee noonu ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni li ñu ñàkk ñoom mooy pouvoir bi ñu leen joxoon jox leen ko pour ñu liggéey réew mi ñoom ñu toog di ci noos di ci nguuru soo waxee ñu naan ku aaye wal sa moom xaw ma yu mel ne noonu jàpp nañ ni ñun ñoo leen yàqal seen aaye. moo tax enn bi ñuy bi ñuy dund ñoom en bi jëmale ko ci ñun du fi jóge ñetteelu catégorie bi mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ni am na ñu ñu bëgg ci réew mi te jàpp nañ ni bu ñu demoon ba wéet ak président Diomaye dina gaaw waaye tànk Sonko ngi fi dina xaw a jafe ñooñu nag xam ngeen fu ñu juumee wallaahi dañu xamul soo excellence ay bu ñu xamoon son excellence suñu xamoon seen son excellence dañu xam ni man maay seen jàmm man bëri na loo xam ne son excellence yëkkati na ko fii ma ñëw ne ko monsieur le président ñaan naa la tegal ci suuf rek mu ji keroog daf ma xool ba si yàgg mu ne ma koromaak ma ne ko ah mu ne ma yow dama ragal ni gars yi dañ laa atteindre mystiquement de dama ragal ni dañ laa atteindre mystiquement son excellence le président Bassirou joomaay du ñeexum ñebbe de ay suñ ko xamoon nañu toog di ñaan bés bu bu ne yàlla na fi Sonko yàgg waaye nag weesu nañu foofu fi ñu toll nii ñun dañoo fas yéene jublu ci liggéey bi tàmbali nañ ko bu yàgg sax waaye maa ngi dellusi si doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi mooy li taxoon ñu daje fii li taxoon ngeen woo fii mooy lan la ñuy xaar ci peuple sénégalais balaa ma naan lan la ñuy xaar ci jeunesse sénégalaise bi peuple bi yëpp laa bëgg a waxtaanal gis ngeen politique amul lu ko gën a noble politique amul lu ko gën a noble ci àdduna yàgg naa wax ni nit mën ngaa matadi sa lépp manqué nga dem taxaw jàkkaarloog suñu borom mu seet la nga doon daj ngir sa askan mu ne na jàll loolu man gëm naa ko julli baax na koor baax na aji màkk baax na leneen ak leneen waaye sonn ngir sa askan gëm naa ni amul ko gën a noble moo tax gars yi ñoom affaire politicien lañuy def politique gu ñu de ñun nag dañuy politique te nit ñi dinañu xam lan mooy suñu différence ci cadre boobu yàlla jox nañu réew mi ñu ngi ciy liggéey lu mucc ayib réew kenn du ko soppi ci ñaari weer kenn du ko soppi ci juróomi weer kenn du ko soppi sax ci benn mandat waaye xam ngeen lu am solo mooy nga teg les fondamentaux yoo xam ne bis bu ne sénégalais bu ñu yeewoo nga teg jéego boo xam ne xam nañ ni fi nga jëm mooy yóbbu Sénégal ci progrès ak développement ci loolu lañu nekk. ñaar moo mën a am soit ñu def la gars yi doon def mooy bu la yàlla joxee réew soit nga nekk ci benn agenda politicien mooy déjà yaa ngi xalaat élection bi di ñëw yaa ngi xalaat élection bi di ñëw militants yi wër la ku nekk naan la mën a mën a jox ma ñoo fi newoon di def lii ñoo fi dajoon lii jox ma jox ma nga topp ci loola waaye loolu weesul juróomi at élection dina ñëw ci juróomi at yi dina am benn élection wala ñaari élection wala ñetti élection waaye foofu la yem te boo ko defee askan yu jéppi la parce que askanu senegal li mu sanctionné ñi fi nekk lii rek la de du leneen ñaareel bi nag mooy suñu option ñun ñun xoolu ñu la prochaine élection sénégalais koo laaj lan mooy PSE xamu ko yéen ñi est-ce xam ngeen lan mooy PSE lan mooy volet agriculture PSE lan mooy volet industrie PSE lan mooy volet financement PSE xamu leen ko nun du ñu doxalee noonu gis nga changement boo ko bëggee def ñi la jiital il faut ñu xam foo jëm ku xamul foo jëm munu laa gunge moo tax yi ñuy def ni yëpp di lappi lappi waaw dund bi seer na ñii defuñu li ñaari weer dund bi ñoom ñoo ko seeral de ñoo seeral dund bi sàcc xaalisu réew mi jaxase mbir yëpp defuñu sax ñeeri ñaari weer xam nga ñoom suñu muusoon sax dañuy dem làqatu ba ci kanam ndax boo sàccee ñëpp daw ne wupp sàccee nga dugg ci benn ruq gaa romb gisuñu la waroo gaaw a génn de danga war a toog foofu ba affaire yi dal ba guddi ba mu lëndëm nga yot ndànk waaye yow gars yi demaguñu sax nga génn naan wooy waaye dina dina saf si ñoom dina saf sap sap sap sap sap te ñooma ñoom gis nga ñoom ñoom li ñu yàq ci 12 ans li ñu yàq ci 12 ans moom lañu ñu bëgg a wëlbatiku gëmloo sénégalais ñun ci ñaari weer lañ ko waroon defar est-ce que loolu xel nangu na ko 12 ans nga yàq réew mi yàqet ne ñun ci ñaari at nañu régler lépp donte nag dinañu régler de bu soobee yàlla fii nag fan yu néew probablement semaine bii sax. dinañu wax sénégalais yi mesures yi ñu jël pour wàññi dund gi bu soobee yàlla dinañu defar de waaye dama bëgg a partager yéen ngeen xam fu ñu toll parce que yéen yéenay projet bi de du ñun su ma waxee vingt cinq man dans vingt cinq ans réew dans vingt cinq yéen ñi am 20 ans 22 ans 25 ans yéen yéen a war a nekk Bassirou Diomaye Faye yéen a war a nekk Ousmane Sonko du man kon projet bi yéen a ko war a porté sénégalais bu ne da cee war a jël wàllam fan lañ ci toll bañ ñuy fal dañoo am un projet projet bi lan la wax un Sénégal prospère souverain juste def naa loolu lañu wax ci projet bi ci loolu la ñuy liggéey. projet la ñu ñëwee projet projet mooy li ñu présenté woon Sénégalais yi ne lii mooy programme mu président Bassirou Diomaye Faye 54 pour cent des Sénégalais wóolu ñu au premier tour en tant que opposition lu musul am. 54 pour cent au premier tour pour l'opposition boo koy natt dëgg dëgg dëgg nattee ko 78 pour cent ou 80 pour cent dëgg dëgg dëgg loolu la ñu Sénégalais jox. boo ci génnee càcc gi génn ci mbuxum gi génn ci yeneen ak yeneen kon étape boobu lañu tolloon nee naa leen ñun dañoo xam état xam fi ñu jëm biñ ñu ko joxee dañoo commencé liggéey bi liggéey bi ñaari fànn la bi ci njëkk mooy am na la courant da nga fee fekk mbir il faut mu continuer dox li ñuy wax la principe de la continuité de l'état mooy ndox war na am courant war na am nit ñi war nañoo lekk nit ñi war nañoo naan nit ñi war nañoo faju nit ñi war nañoo nit ñi war loolu dañ koy continé di ko améliorer loolu mooy la courant waaye à côté ñun dañ fee fekk lu tudd plan Sénégal émergent yàgg nañu wax ni baaxut te su baaxoon Sénégal du toll fii mu toll nii ñu nekkoon li nga xam ne mooy le nouveau référentiel des politiques publiques mooy li nga xam ne moom la ñuy togg ba nga xam ne tey lay doxal Sénégal ci juróomi at yi di ñëw foofu lañ koy tibbee ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñoom bañ koy def dañoo dem jël benn cabinet bu tudd Mackenzie fay ko 3 milliards ñaari at ñu la ñu fal la 2012 ba 2014 ngay doog a génne PSE ñun ñu ñu fal 2014 2024 septembre 2024 ñu génne leen suñu document septembre 2024 ñu génne leen ko incha allah te demuñu ko demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi. seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de parce que saagaa leen desoon ak xaste te dootuñu ko def bind di sosala fi desoon te duñu ko def nañu dem sàkku xam-xam duy seen xel yi ñëw taxaw ak ñun ñu discuter ci suñu programme loolu rek a fi des ñaareel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050 ndax kuy defar réew da ngay gis fu sori àdduna bi taxawatul ci benn bés les choses vont vite donc ñi ngi togg document bi ñuy wax Sénégal vision 2050 nga xam ne day leer nañ ñu xam chaque jour chaque semaine chaque mois fañ jëm président Bassirou Diomaye fay jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement